ay fan rek des ñu amal coupe d'Afrique des nations waral ñu daal di doxantu ba marché leen xool na fi njaayum tele mi tollu yile jaaykat di xam xamle ni njaay mi doxul ñam waree. waaw njaayum télévision yi ñoo ngi ci ndànk-ndànk waaye nag daan na fi gën a dox. waaw waaw waaw par rapport ak yi moom li mu daan doxe moom doxee gu ko na nag ni ñi dañuy xaar tuuti wala dëkk bi xaw a sant Diop. njaay bi. tane na de mi ngi dem ndànk-ndànk waaye par rapport ak bu njëkk ah waaw télé moom bu njëkk la gën a dox daal. lenn lu ko waral buñ sukkandikoo ci ñoom moo di téléphone yi nga xamante ni ñu ngi koy jëfandikoo. ndax lu tax téléphone yi ñaare mo yàq lu bari ndax ñu bari ñu daan jënd télé télévision yi nga daan am yëpp yaa ngi koy am ci sa portable moo waral njaay mi wàññeeku na par rapport ak bu njëkk moom am na différence. am na téléphone yee tax léegi. ñu bëri léegi si téléphone lañ gën a concentré télé loolooy problème. naam télé yi mu ngi dox ndànk-ndànk waaye yi ci gën a jar moom moo di smart TV yi li ko waral connexion bi muy jël. peut-être nag léegi smart TV yi na waaw ndax comme connexion da ngay seetaan YouTube ak yooyu looloo tax yooyu ñoom ñoo tane par rapport ak bu njëkk quoi. télé yi seeru télé léegi wàññeeku na par rapport ak daaw daaw daaw jég la gënoon a seer ci ren kan daaw moo gënoon a seer par rapport ak léegi télé yi wàññeeku na bu baax a baax a baax télé moom. lu waaye am am télé. télé 32 pouces da nga koy am à mille bu njëkk 32 pouces à 150 mille tey la gën a yom looloo tax du ci prix de prix tey la gën a yomb par rapport ak bu njëkk bu njëkk télé boo amul 150 mille doo am 32 pouces nag boo amee 75 ba 70 mille da ngay am 32. bu ñu sukkandikoo ci yile jaaykat njaayum télévision doon na luy deltu ginnaaw waaye ñu ngi am yaakaar ne fii ak Coupe d'Afrique bi di ñëw njaay mi dina gën a dox.